Bukan ji bugaan ge dane nga xamantene tabakal ma sha allah ñep gis nañ ko ci nimbal gi muy def ci rew meeg jappale nit ñek yoyu xam nga legi yow bo bëgge tok fi di wax ndax te lan dafa tubbu sa tank président mo tax moy tibbu tankam waaw ba pare di wax deug ci mi nday gis nga bax ci biti te hmm. baxo ci sa biir kër hmm. megul ben sens hmm. gan ge dane man mani ñetti jabar ndëgam atono ko muno atan sunu rew mi te nga yem ci sa tele bi ben bugan amo écran plat doomu benn baas bee la ko abal bugan fayo say cameraman ñum ñep dem nan ñi ngay torox di joy bugan wayo bugan neena la nga dindi sa photo yi nga taf ci dekk bi xam lu ci tour ah attends ah kay ah kay Bougane lan moo tax nga ne écran plat am ko te boo gisee télé bi macha allah def immeuble bu baax. mais yooyu yooyu yëpp ngistal la li ñuy def ci biir nee la Bougane du fay cam ñiy def caméra ñi ñi ñiy filmer nii du leen fay caméraman yi. pourtant émission mu ngi dem de. émission baa ngay dem boo amul la la la gënal da ngay jàpp ca la fa sës Bougane seetlu lu ma lay wax Bougane dàq na paaye fa ne woon saaga leen. bugaan sagana na Clédor eh, eh, eh, rakk ja génne ko fa bugan néna la ñetti jabar yi bugan tak moko def lo xamul fu ngui koy xir mu xir ko ci réew mi <laughs> bugaan yemal ya ci sa télé bi mom ci télé mbi la ko nawé won non yow da nga bëgg wa dé bugan actuellement ni limu mu nekk li am ñetti soxna waru mëna a nekk njiitum réew dédé mu ñu leen réglé mëna nañ am dam moko def lo mo moo awo ba ah. ak momi mo gis nga dafa melo am am am bobu ngeen doon yónnee nu mu ci bi ngeen di yónnee jooni joni am benen ba am na beneen bu mu amaton yoy yeb of lu ko def non naw ñetti jabar ya <laughs> ñettel ba toroxal bu ganti rew mu mu def ay wa kërëm nan ko japp ah, yow yow kura li ngay wax dafa doy waar parce que ñettel bi suma jumulé moy ki doon liggéey ak mom té mu ngénte woon ko ngénte lu rëy li kooku nag kooku nag moo yóbbu nag furu fara bugaan bugaan réer xoolal léppam di def nii xoolal oh. xam nga ni bugaan bu demee oh. ba président république lu mu war def bugaan gëlëm gëlëm lu tax ñu woo ko waaw mais attends parce que moom dafay ñaax xale yi pour ñu dem bindu ji donc loolu moom du cëram moom loolu mu def mën na ko def oh. ñëpp a ngi dem leen ngeen bindu dem leen ngeen defari seen carte d'identité mais lu tax Bougane kan la ci réew mi ba war a jël posteram bu mag boobu mbete mbete président république doonagoo ko yow munoo gérer lu lu télé bi tudd Sen TV Sen TV munoo ko gérer ña ngay jooy ñi ñaa ko wax ña fay liggéeyee. mais Coura xam nga seen TV moom wax dëgg yàlla boo gisee ña fa nekk macha allah. doxul ñu nga fa di liggéey seen liggéey bu am solo. doxul yow seen TV ba mu ñi ma xam seen TV dafa bari lépp lu ñu fa wurut xam nga tey seen TV ku fa ku fa ku fa tedd. Amadou Ndione. waaw. alias Ahmad Aydara doomi dàngit moo fa moo fa am moo fa am place Mansour Diop netatu raw ñooñu. mais say xarit lañu waaye ñu ngi tukkalaat dina ñooñu ñoo fa ñooñu daal ñoo fa am salaire ñi ci des ñëpp France sama xaritu benn bakkan Bougane yoral na ko xaalis ci télé boobu la doon liggéey Bougane ameel na sama xarit xaalis foofu la doon liggéey ñëpp xam nañ sama xarit ameel na ko ci benn publicité bu ñu defoon ci diggante bi kooku bàyyi topp na ko ba sonn nee na ma bàyyi naa ko ak yàlla buggaan ah, ak ak ka ko feesaloon télé ba euh, kii ba stade euh, géejawaay ba yow buggaan def fenn xale bu jigéen ba ko feesalal kaaram yooyu xale bu jigéen boobu ba tey ji mi ngi jooy mun mun ko gis buggaan ak bët xamul fu buggaan ne ma ngay jooy moom daal buggaan daal la ngi tëj réew mi di defi ngistal police bu ñu rajee buggaan ne jël naa ko en charge mais ñi koy caméral du leen fay mais yow seen euh, TV mi ngi toj lan mooy xanaa ñàkk a fayeku mu ne day topp day tibb tànk Macky Sall yow xanaa xamoon ne président boo toppee ci ginnaawam ci tànkam naan danga koy tibb mais yow dangay dellu ginnaaw ñetti jabar day noonu bugaan ma ne nga toppatoo sa télé bi bugaan gay dani yii ngay def sénégalais dara ñuru ci xam nañ ni yow bugaan furaas of joni joni of bugaan sa ndigg ni karaj waaw kay waxal sénégalais nee leen sama ndigg moo ni karaj mooy ñetti jabar la yor bugaan dafa mën a dem fenn bugaan toog bu yàgg sax mënu ko <laughs> wax lu yàgg sax manu ko fu oto dawee ñaari minute buggaan ni may leen ma ma tàllal sama ndigg ma ne ko bi gëmani ka rek ndax ñetti jabar yi nga bëgg a yor suñu réew xanaa yow kon dañ ñu bëgg a rey yow bëgg a musul am ci àddina musul fii am Sénégal Sénégal benn rek moo fi ne benn première dame rek mu mel ni suñu ajaa bi mère de ma Marème Faye